Benno Bokk Yaakaar mi ngi am 14000 Yewwi Askan mi ngi am 3600 voix xam nga la différence énorme mhm. te amuñu problème ak ñoom ah, moom sa fief la waaw waaw mais loolu on l'a travaillé dañ ko liggéey liggéey bi dañ ko liggéey lu ko jiitu xaaruñu ba élection jot ñu ñëw rek naan leen far leen ñu dañ fi nekk pendant 10 ans di liggéey ba amal ngeen ñun kaw ñaari nit ñi ñun kaw la mënoon nañoo bañ a campagne te li ma la man a wax ni ñi ngi ci local yi bu fekkee ñun toogaan nañ ah local non non local yi dama ne ñun gagné nañ local yi li ma wax sama gars yi bu ñu fa toogee cinq ans élection ci ñëwaat ñu war a campagne aat ça veut dire que li ñu war a def mooy tey lañ commencé suñ campagne suñ campagne mooy ñu liggéey ba population bi teg suñu bët daal yow waaye yow askan bi doole gi ñu am yëpp xoqatal lañ la fee foofee ca Kaolack non amul xoxutal c'est-à-dire nee naa la. parce que jamono gi ñu toll nii bëri na ay leader nga xamante waaye yow dinañ tiital dañoo ma wax ci sama li ñaar ñu nekkoon ci man ñaari adjoint yoo xam ne ñi ngi foofu di campagne. Mhm. et teewul ñi gise tey danañ gisewaat. Mhm. mais duñ fa wax affaire campagne xëy na kaf rek. Mhm. kenn ku ne tooñ sa morom mais. luñ fay wax luñ ko fa def li am solo mooy. Mhm. Euh, ah euh, doole xam nga. Mhm. man pour man ba léegi dama naan. Mhm. yow askan bi amul doole. bu amee doole rek c'est la population sénégalaise ñoo ànd ak ñoom. mais lu actuellement nii waaye yow ñu nekk Kaolack te yow nekkoo fa peut-être pour recevoir leen en tant que maire dalal parce que am nga fa ay am di jàmm. non tey damaa ñëwoon ci benn réunion. moom a indi waaye démb dalal nee naa la dalal naa euh, wallu wàllu moog yeewoo ànd. dalal naa ñaari yoon wàllu ak yow dalal naa Abdoul Mbaye dalal naa euh, Mamadou Lamine Diallo mu ànd ak tekki. Sonko dalaloo ñoom Khalifa Sall. am na ñu leen di dalal ñu fa nekk est que ils ont ah, ma dalal leen. ma dalal leen ma leen sans problème. non ñenn ñi na da daw da nga profité génn kaw nag ñëw Dakar. non non non parce que bëggoo parce que bëggoo daje ak ñoom a xam sama bopp. jeex na loolu rek. nga ni munuñ maa gën a xam sama bopp daw ma damaa day rek bërëq li tax ma ne la daw ma. Ah. wax dëgg yàlla maa ngi jaaree damaa am sama papa bu nelaw ay dara kebe. Mm, mm, ci bi laa ñëwoon en mm. même temps ma profité ñëw ci. mais campagne bi jeexagul buñ fa ñëwee te soxla ma ma dalal leen. nga dalal leen. Euh, beneen mbir bi nga xamante ni ba tey am na ci législative yi tamit euh, mu mu créer tamit polémique toile bi yëpp di ci waxtaanee muy keroog acte bi nga xamante ne Ousmane Sonko posé na ko jëmale ko ci waa RTS rejeté seen micro ni ci wax. waaw loolu de gis naa ko gis naa ko mais ci yu boppam la gisu boppam la gis naa yéen ci gis-gis nag boobu parce que dama ne ah. xoolal man su ma neexoon ma ne du ma wax ci RTS su ma neexoon nga woo ma ne du ñëw c'est la même chose ah. amul problème moom mu ne bëggul RTS génne affaire am lu ci mag RTS mënoon na décider ne du génne du génne du génne amul crime ah. parce que gis naa yeneen ñaari ñaari leader yu ko defoon gis naa euh, kilifa diine yu ko def Serigne Abdoul Ahad mas na wax ne RT mas na taxaw boycotté Serigne Abdoul Ahad mas na taxaw boycotté RTS ne murid yëpp buñ boy buñ waxati ci RTS. tàggee sax daawuñ ko fa def. il faut que Sénégal ñu jël histoire daal. soo demee États-Unis Trump jógoon na fi ne du wax seeneen CNN. bon je pense que c' des affaires banales yi ñu war a nekk non mais lii nga xamante ni kilifa gi war nañ ko war a mën a banaliser parce que à rappeler que ni yow jamono jël tamit patron de presse euh, nga am nga am nga am am nga sa chaîne de télé et autres donc lépp da nga xamante ne moom ku ne da la tàllalee micro da war a wax wala boo waxul mu nekk crime kon nga lu ñu bi bi acte da ko kii da nga ko questionné waaw pour man c'est banal mérité wul woon sax ñu di ci wax parce que yàgg ni ay nit yàgg na koo def oui le problème Abdoulaye Wade wàcce na fii jóge Paris mm. bon jóge Paris ñu taalal ko RTS mu ne du ñu jël nit ñëw nañu jox ko TFM mu ne du ma ci wax. mais la chaîne mère à rappeler que c'est la chaîne mère et euh, ku nekk président tamit da ngay obligé liggéey ak ñoom ñi nga xamante ni tout le temps ñoom ñoo nga laaj ko. non mais yow dama laaj parce que yow. man naa la li affaire banaan du lu jar lu jar. mérité man man affaire banale je confirme parce su ma neexoon suba ma ne nga tàllal ma sa micro ma ne du wax ci yow. mais li nga xamante ni nit ñi moom la ñuy joxeñ baaraamu tuuma RTS yow ànd nga ci ak ñoom que dañoo war a équilibrer dañoo wane seen seen position de trop. mais bien sûr RTS loolu moom. Mhm. loolu moom du RTS ci boppam c' est les c' est les gouvernants loolu la defoon Abdoulaye Wade loolu la defoon Macky Sall loolu la defoon je pense que ñoom ñi di wax tamit bu ëllëgee bu ñu yore bu ñëwee ci RTS nañ ko soppi nañ ko soppi rek loolu rek la mais loolu kay voilà yéen tamit on vous rapproche ne toujours da di sànni xeer rek. ñun moom ñun ñun moom ñun ñun ñun kenn rapproche bi. parce que xam nga yaa ngi nekk fii jël. ñun dañoo affaire boobu affaire boobu. nee naa la c'est une affaire banale nga déglu li ma la wax mais yaa ngi may pousse pour ma wax ci dara loo xam ne nii. Euh, boo paree nga def ko gis nga gis nga da ngaa waroon boo ma man puusoo ma de puusoo question bu nga xam rek nga doy sama question ni ma la tontu doy la nga avancé. non man nag xam nga man euh, yow xol bi la jox ba ba conséquence bañ nga daal di nit yi man xam nga yàlla may ma xol boobu man damay topp ni ba sës. waaw d'accord waaw man waaye yàlla na yàlla may xol boobu <laughs> xam naa ne bëgg nga am xol boobu <laughs> alaama amiin euh, mais ginnaaw ba ñu euh, législative yi fi fi may bëgg nga daanalee ak euh, yow ci législative yi nga ñu mën a dem nag def sa bilan par rapport ak élection locale bi ak jamono gi na nga teewee mairie bu Kaolack ani tey ji fan ngay daanalee ak si législative yi loo ciy woo askan si ci législative bi ñu dëgg ma le 31 juillet lan laa ciy woo mhm, askan bi bon li ma ciy woo mooy sincèrement surtout candidat yi su yàlla defee ñoom ñu falu ngir yàlla nañ nañ fexe ba li fi amoon bañ fi amati li fi amoon bañ fi amati mooy beaucoup plus débat d'économie xam nga ñun ñun ñëpp économie moo ñu intéressé économie moo intéressé ñëpp kenn ku ne soo xëyee lu nekk sa bopp sa religion nga julli maa ngi dawi daanu da da maa ngi da du maa ngi politique yi mm. politique sax kiñ gis muy dar dar yi mm. ci bëgg wala yàlla may ko mu am Euh, mu am engagement. Mm. ci pour bëgg a liggéeyal mm-hmm. waaye ne muy liggéeyal tamit ñooñu tamit gis ci seen bopp lañ bëgg. Mm-hmm. je pense que loolu laa leen di ñaan te sénégalais yi tamit ràññee. Mm-hmm. parce que sénégalais yi ni ñuy ràññee mooy nañ fexe ba. Euh, choisir ñoo xam ne nii ëllëg euh, danañ mën a représenter bañ xam ne ay nit a jóg dem vote ji ba doon décret bu ñu jox. président de la république ne ko nommé lu député mën nañ wax ne président moom moom député yi mais bu fekkee Euh, laaj nit ñi seen kàddu ñu jox leen ko dañuy fàttaliku toujours euh, àq jooju ñu am ndax àq la am ndénkaane la nit ki dafa ñëw jël alalam dénk la te alal bi gën a foor ci doomu aadama mooy baatam ak avenir am. na solo waaw mu denk la ko bu la ko denkee nag mm-hmm. c'est-à-dire nga di ko seddaale toujours rek. Mm-hmm. xam ne euh, suñ ne lee honorable député ak député yëpp. yow li nga yor moomoo ko dañ la ko dénk. mais ci wàllu économie boobu nga taxaw euh, je rappelle également que yow yaay président de l'union des chambres de commerce du Sénégal. Hmm. et que am nga xam-xam bu màcc jëm ci wàllu économie ak it euh, cher te dund gi jamono kon ban taxawaay ngeen ci am parce que gis nañ dund bi cher na euh, bu baax a baax depuis lors tabaski bi également nit ñi problème yi métti nañ ci jànkuwanteel tey jii ban position ngeen ci am